Euh, ñu daal di soobu ci waxtaan bi ab du Nguer fi ma bëgg tàmbale tàmbalee yow waxtaan mooy démb combat royal bi am diggante Modou Lo ak Siteu euh, bu ñu xuusee ca beneen wet gis nañ ne ñàkkum ngi fasoon na lool ci combat bi mais itam ci biir combat bu ñu ci xuusee ba ci biir biir diggante ki ngànk couronne bi ak ko bëggoon a jot di Siteu euh, naka nga ko jàngate waaw am na jàpp ne nekkutoon combat. waaw du loolu jàpp naa ni bala maa ñëw ci combat bi sax damay ñëw ci. insécurité bi amoon ci avant làmb ji. ndax gis nañ benn biis BRT boo xam ne sax euh, dañoo toj benn ci vitre am. Mhm. muy loo xam ne dañ koy ñaaw loo wax dëgg yàlla nag euh, Sénégalais yi war nañ di xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax parce que nag bu dee dëkk la boo xam ne su ñu nee population bi fi nekk matiruñ wala nangam wala kenn kenn kenn jëkkati baat daan askan wi nangam. Mhm. Euh, ñu ne non da leen a saaga wala da leen a xas mais même askan boobu ñooy wëlbatiku di def lu noonu. ça beneen affaire lay doon xëy imaginel tey boo toogoon exemple laa jox tey boo toogoon nga ne. Hmm. askanu Sénégal wala nga ne euh, ndawu Sénégal yi comme ay mala. Hmm. xam nga da leen di naqari mais c'est-à-dire que yenn actes yi acte mala la. maanaam boo doxee tuuti di nga gis luy mën a firndeel. merci beaucoup te boo ko waxee dañ naa noo ki dafa saaga nii dafa fekk bu xoolal da ngay dox tuuti rek nga gis acte bu mel noonu c'est-à-dire bis bu ñu defar ba bu baax. Hmm. def ci ay million ah. ay milliards sax. mais sa mbër bëri ji na. lan la joteeg biis bii romb. dara maanaam ay acte la maanaam am na loo xam bu ñu ko waxee nit du caage ne nit ki loolu la mais acte yi muy def ay acte de barbarie la ñuy wax wala hmm. maanaam parce que da gis ay acte la ñuy àttee nit. Hmm. acte yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel quoi luy maanaam mbir bu ca yoonam newul yoonam newu ca. Hmm. mbër mu bëree sa mbër bëri na daan na sa mbër bëri na daanu na loolu wax dëgg yàlla intérêt bi Sénégal yi bokk nag waru tax a laal honnêtement nag pour ñu waxante dëgg rek. Hmm. te loolu gouvernement bi moo ci mën a jël ay ay mesures fermes nag. justement hmm. parce que mooy alalu jàmbur wala alalu réew boobu ku ko yàq da ko war a fay. Hmm. boo demee ba nag amoo loo ko fayee ñu dem corriger la mais am na loo xam ne yàq moom fay dong ci jaadu. fay kese moo ci jaadu. même au delà de yàqum bus bi gis nañu aussi bu làmb jotee ni ñuy. tegee fitna askan wi alali jàmbur yi alali jàmbur yi ñu jël di ko nangu amatoo droit dem Yoff wala amatoo droit dem. Pikine wala amatoo droit jaar fii. waaw maanaam di nangu alali jàmbur. Hmm. loolu ba kañ tamit te boo jékki-jékki woon jël ay mesures suspendre làmb ñu ne non culture bi naa yow te yow culture bi am na ñu nekk ci biti di ko yàq du mbëri nag. mbëri moom ñoom bu ñëpp meloon ne mbëri problème du am. Hmm. waaw bu ñëpp meloon ni mbër yi problème parce que ñoom xam nañ ne seen intérêt moo si nekk. jeex na sàmm moo ci ne mais dafa am koo xam ne moom day topp mbër bi ah daanaka day yàqal mbër mi quand même. Hmm. mais ñaata mbër lañ sanctionné fii ndax seeni supporters. waay day mbër mi. mais d'une part est-ce que ñoom amuñ ci part de responsabilité. mbër bi amu ci mbër ko amu ci part de responsabilité am na loo xam ne ñaari adversaires yi la quand li ñuy waxante ñoom ñaar. mënul ñàkk supporters yi seen yoon ne wu ji fayeeku wuñu joxuñu leen sponsor joxuñu leen dara. Hmm. mais au moins nañ xam nga nañu defaraat ji koy làmb taar na ba pare. mbër yi ay noobu lañ mbër yi or làmb ji rek nga leen di gis ju takk ay biling biling takk fii mais boo leen gisee or làmb ji. Mhm. mais nit gënu leen nite. ñun dañuy daje ñoom ñun ñoo bokk ak ñoom société bi. Mhm. mais biir làmb biir làmb la. mais nañu defaraat maanaam toogaay maanaam ñi topp mbër yi nañu dimbali mbër yi. maanaam làmb mën na am ba jeex ku la neex fu la neex. dem la neex fu la neex jaar xolal dañ ko def comme xolal da ngay gis nawetaan non ngay gis sax football ligue ligue professionnelle. da ngay gis ñaar ñi ñu toog nii. Mhm, di waxtaan naanante naanante café bokk yëpp toog laa ji euh, match bi jeex ñu ànd dem. mais Sénégal loolu loolu loolu dañ ko fi war a fexe moo nekk fi nekkam it. Mhm. parce que bu ko jaree ay correction mais état bi na ko def. c'est-à-dire dajale acteurs yëpp wax leen li mën a ne. da leen di wax li mën li nga xam ne moo mën a ne mën a continuer ndax mënuñu chaque dimanche nit ñi bu ñu waree liggéey yi nit ñi war a wàcc war a ñibbi nit ñi war a am dem seeti seeni bokk mais duñ ko mën. waay hmm. loolu mënta ne mënta continuer. te Sénégal benn maas benn bomba gi fi buy nelaw boo xam ne Ousmane Sonko yeewoon na ko. Hmm. mooy bomb jeune ndaw ñi. Hmm. seen jot dafa bari. exactement dañoo amul liggéey. bàyyi boobu luñ mën a def ci góorgóorlu ci xëyu ndaw ñi ñu def ko parce que man gis nga fuul bi ma gis ñu topp Modou démb jaar nii. fuul bi ma gis ñu topp Siteu jaar ne ku mu yéemul. mën yéem na ma te gis Ousmane ko bi mu cóollee même ndaw ñooñu la jël muure ko muure ko boppam. ci faaw nga laax ci Ousmane Sonko dama lay waree dafa am man li may wax ay factuel lu ay fee la damay ragal ëllëg keneen cóolle jëlaat ndaw ñooñu muure ko waat boppam. Hmm. te gis nga bomb bii di nelaw bu ñu fexewul di wut ci solution bis bu ne waatee pëf mën na fee indi guerre civile. Hmm. te li ma lay wax nag bay boo nga bàyyi ci xel bomb la boo xam ne mu ngi nelaw nañ fexe ndaw ñi am jot amul ci luñ téye ñu fexe ñu jëm ñu luñ téye. parce que ñii bu ñu amul ci luñ téye ñeneen ñi am ci luñ téye la ñuy dem nangu seen alal lu leer laa la wax bu ñu amul luñ jàpp. Hmm. yow mi am loo jàpp xëy yor sab salaire fayeeku romb leen ñoom yow moom lañuy jël li nga yor. maam kenn dootu nekk ci sécurité. jeex na tàkk kon baye boo ñu def ci maanaam lu ñu mën. Hmm. lu ñu mën baye boo ñu def ko ci. pour lii nii may seen muy muy raam. balaa àgg ci ñag mais loolu ngeer dimanche la woon te ku ne dimanche ndaw yu bëri du ñu xëy peut-être looloo tax ñu. waxuma loolu de. toppoon dem seen dama ne quatre-vingt-quinze pour cent ci ñuy agressé dañoo amul ci luñ jàpp. ok. loolu moom maa la ko wax. Hmm. quatre-vingt-quinze pour cent ñi dugg ci bis yi tafawaatee ka sàcc dañu yuru ci luñ jàpp. billaahi. trian moom mën nga am ay milliards de trian de. bokkul c'est autre chose. mais agression est-ce que amul risque la. risque la kañ surtout ndakaaru gi da ngaa amul loo téye yow xamoo ki agressé mu ngi ak pistolet. Euh. xamoo ci dara. parce que da ngaa jaaxle ñàkk nga pexe. Hmm. loolu nag du justifier ngay dem di jël alalu jàmbur. mais day bokk ci li nga xam ne bomb boobu bugg maanaam gis nga li ma la wax fii rek nee naa nguur gi pour ñu yàgg fi ñu ci ñoom lay dépendre. Hmm. mooy bu ñu réglé xëyu ndaw ji ak dund bi. Hmm. <laughs> leneen lu ñu fi def kenn mënu leen gagné. maam li leen li leen fi tax a. crise économie ba ma waxoon rek moo leen fi mën a jëlee yow am nga lu kenn amut ni ne ne loo def yaa tey loo def bëgg naa. Hmm. fexeel buñ xiif boo leen tàqalee xiif noppal nga sa njaboot sax mënoo leen a yar fekk ñu ngi xiif faaw ñu def lu ñu wër ta def. Hmm. loolu daal appel bu ma leen lancer pour dimbalee leen ko ñu bàyyi ci xel gën cee focus. Hmm. te sensibiliser xale yi topp mbër yi dem ci làmb ñu waxtaan ak ñoom nawetaan bi tam pareil. fuul yi sax gox yoo xamante ne jot supporters yi dem supporters yi dem noonu la hmm. violence bi dafa bari ci Sénégal léegi ba nga xam ne faw ñu indi ci ay mesures de correction yu sévère mesures yu sévère nag yu sévère sévère sévère mais mesure mënul gën a sévère nga aj ki club bi wala équipe bi wala nga aj mbër mi pour man non boo fa kël xanaa xam nga boo ko ajee par supporter club bi bu defee recours tribunal hmm. arbitrage dañ koy aj de wakaam a ngi nii seen incident bi amoon mbuur dañ leen a wàcc Ligue 2 mais bañ defee bañ defee euh, recours ca la ca tribunal arbitrage dañ leen a delloo si Ligue 1 bul yaakaar non loolu ba mbër mbër yi nga koy def mu jàll de mais club yi seen supporter di def ay dérive match bi nag mën nañ ko yàq ñu def rapport nga perte match bi waaye am na ci yoo xam ne ci mbedd bi bu ko club bi defee sa yoonu yoonu kii équipe bi néew ci de hmm. yooyu état du Sénégal la ko res moo ko war a lijjanti surveiller ko voilà loolu la nag. alors bu ñu desee ci combat bi. bu ñu desee ci biir combat bi nee nañ Modou Lo daanu na. non Modou Lo moo daan Siteu.